asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la siyaare bu baax baax di la ndokkeel ci weer wu tedd bi di la ndokkeel ci bis bi ñu génn te ñu àndoon ko muy mawlidu nabi di dalal monsieur le ministre Cheikh Tidiane Dieye ak équipe bi nga àndal yëpp ak directeur de ONAS fi ànd ko ak gouverneur de la région euh, préfet de Mbacké sous préfet de Ndam ak sa personnel bi nga àndal yëpp di nuyu Serigne Cheikh Thioro mi nga xam ne ah, ci suba ba léegi ni mu ko waxee ñi nga ànd ci dëkk bi fenn fu nekk teg na fa tànkam masawu leen maanaam jooytu leen sëriñ bi eh, dañu bi ñu xëyee tey comme ni ma la ko waxee ci suba teel naa laa jot lool eh, di jéggalu bi ma lay woo sax maa ngi naan ah, maa ngi jéggalu teel na maa woote bi ma eh, coupé ak yow leeral la ko. leeral ko Serigne siide Abdoulahat ci téléphone leeral ko Serigne Mountakha ci téléphone biñ jullee ba noppi rek xamal leen ne leen ah lii ngeen ñu dénk de muy dëkk bi ak conseil municipal bi ma àndat tey jii moom yeewwaale nañ ndox mu xaw a bari cent quarante millimètres bi ma koy jot na bi ma lay woo ci suba sax xamaguñu ndax booba météo génneegul maanaam volume bi nga xam ne moo wàcc ci kanam tuuti bi ma waxtaanee ak ministre bi ministre bi ne ma xam naa ne danañu danañ ma ko yónnee dana ko xam bi mu xamee lañ ko door a xam ne cent quarante et un moo wàcc cent quarante et nag fukki at yi ak juróom dafa wàccul benn yoon ci benn pul bi benn coup dana fi wàcc nag ci semaine bi ñu ne semaine bi am nañ cent cinquante millimètres am nañ cent millimètres waaye benn une seule coup boo xam ne dafa wàcc cent quarante et un amul te xam nga assainissement ci ni ko techniciens yi di dimensionné dañuy dimensionné ne à ah, peut-être cent millimètres donc assainissement bi réseau bi attan na cent millimètres li ëpp ci réseau Sénégal noonu lañ ko doon dimensionné donc bu ñu demee nag bay recevoir cent quarante millimètres dafa mel ni maanaam am nañ surplus de quarante quelques millimètres loolu moo indi bi ma ko wàccee dëkk bépp fees te bi mu feesee nag maanaam euh, bassin yi dafa daal di fees réseau bi fees te ay pompe ñoo koy def te jamono bi muy taw courant bi dafay xaw a compliqué ne bu fekkoon ne sax lu taw bu yem la day taw moto yi di pompe peut-être balaa taw bee sebet dana fekk lu bari dem mais bii dafa ëpp doole pompe yi feesal réseau bi feesal euh, euh, bassin yi bi mu ko defee nag ah loolu moo indi problème bi amul nag ci dëkk bi fii moo amul ndox wala fee am ndox catastrophe naturelle la boo xam ne dafa daj Touba gi yëpp bi mu bi mu amee nag ba nëgë ni muy gouverneur muy préfet muy sous-préfet muy équipe municipale bi yëpp ak ministre bi ñu ngi jokkoo ak ñoom ministre bi ne mi ngi ñëw bi ñu di ko xaar bi ñëwee it ànd nañ def tournée bi xool ko euh, pompe yi mi ngi dox. waaye ni ni ni mu ni pompe yi taw bi dafa jiitu pompe yi mi ngi wàcc nag ci li nga xam ne mooy lantuuru jumaa ji ak côté yi waaye mu des ci côté yi nga xam ne amagul assainissement amagul réseau foofu amul fenn foo ko mën a pompe yóbbu pompe mu ne su faa dem foofu lu dul bàyyi muy wàcc ak lu mel ni euh, ay édercleur comme ni ñu ko waxee ci suba bi ñu demee ba nga xam ne tere bi wàññi ko ne oto yi am na fuñ jaar ñu mën a wut ay éducateurs ñu dem ci kër yi nga xam ne euh, suufe na wii de ko yóbbu wala ñu teg fa ay pompe jël ko génne ko loolu rek mooy mooy mooy solution bi waaye lu ci mën a xew rek leeral nañ ko ministre bi lu ci mën a xew rek sëriñ bi mooy li ci am solo mooy kilifa yéen ñi nga xam ne yéen moom njaboot gi lépp leeral ne leen ko ministre bi nga xam ne moom la fi président de la république yebal ak premier ministre xool na ko ba xam li ci xew waaye li ëpp solo daal ci nga xam ne mooy régler problème mu assainissement Touba mooy li ñu dal ñaar fukki at a ngi nii ñoo ngi am jafe-jafe te at mu ñëw gën a métti miñ weesu loolu nag li ñu koy teg mooy étude parcelle yi ñu koy def assainissement da ngay def étude global boo defee étude global lépp tàmbali di réaliser selon ni nga ko mane waaye bu ñu amee seete situation na am nañ deux milliards nañ seet lu deux milliards man ñu def ko bu ëllëgee ñu ne am nañ cinq cent millions am lañ seetlu cinq cent ñu def ko defe naa ne ñu tàmbali fukki tàmbali te fukki tàmbali yëpp tàggooliwuñu ak problème mu assainissement kon nag looloo taxoon rek ci te xalaat yi ñu am ci bureau municipal bi ak yi ñu ànd ak techniciens yi xalaat na ne lii régler problème bi def étude complète ci assainissement bi xam ne lii mooy regle assainissement bi ñu tàmbali nag luñ ci man lu état man def ko lu ci sëriñ bi santaane ñu def ko loo xam ne njaboot gi muy Touba ci kanam muy commune muy ñeneen ak bolo bonante murid yi luñ def ñu def ko ak seex yaakaar naa ne bu ñu defoon étude globale teg ko nga teg ko ci taabal ji ne nii la demee lii moo koy liggéey état dana ci def lim man sëriñ bi dana jël ay matuwaay du yaakaar naa ne ni mu def université bi kon dana ko mën a def loolu waxuma laa nag su ci àndee ak état waaye tànk ñi ngi def parti ba jël benn parti def bu ëllëgee ñu jël beneen parti def defe naa ne du ñu jóg ci jafe-jafe yi ndax li nga wax ni 2009 ba nëgë ni ñu ngi def waaye at mu ñëw rek mooy gën a metti at miñ weesu te nit ñi de di sëriñ bi ma de la xamal ne sonn nañ lool lool lool lool ci dund gi ñuy dund ci ndox mi lu metti la ndax dund ci biir ndox dafa neexul bis ne tey bii am na ñoo xam ne munu amut fenn génn kër goo xam ne mën nañoo dugg dem ci wana wa ndax ndox mi fees na wanag mënoo kër nag boo demee ba mënoo jëfandikoo wanag munoo taal fenn foo togge donc sa dund ba nga tegoon ci suuf lépp yàqu na kooku wax dëgg yàlla mi ngi dundu jafe-jafe loolu daal mooy li nga xam ne mooy li fi xew li nga xam ne moo ñu war nag mooy conseil municipal bi muy sëñ Isaaxa muy sëñ Mourtala muy sëñ Abdoulahan mi membre de bureau municipal bépp ci suba ba nëgg ni ñi nga ànd ak waa biir waa municipal bi mbooleem loo xam ne ak sëriñ Cheikh Mbacke mbooleem foo xam ne am na jafe-jafe xool nañ ko waxtaan nañ ko leeral nañ ko kilifa yi leeral nañ ko ministre bi nga xam ne moom la président de la république dénk loolu pour ñu xam ko waaw loolu daal moo mooy li nga xam ne moo yendu ci dëkk bi tey ñu di la ko leeral am na ñaar ñoo xam ne suñ borom def na coobare ci ñoom muy Samba Diallo ak Fatimata jàll fa sàmba Diallo nag ab tukkulóor la bu dëkk ca Fuuta yàlla dafa dogal mu ñëwoon fii di liggéey si xale la boo xam ne am na fanweeri at ak ñett dafa ñëwoon di luye fenn di xëy ci marché bi di liggéey ci kooku moom la biir tabax bi daanoo yàlla dogal na moom moo ci des ki ci des benn ay pël fuuta lañ yoo xam ne dañoo luye woon am xale boo xam ne ñetti at la muy xale bu jigéen moom it dafa wàcc te ay bo doo wajur yi yëguñu ko mu dugg ci ndox mi ndeke ndox mi war na na ko mu làpp ba yàlla dogal biñ koy gis fekk na mu sonn ñu jël ko di ko yóbbu biñ demee far suñ borom def ci coobareem muy ay pël fuuta la yu yoo xam ne Guinée lañ jóge ñaari bakkan yooyu daal ñooy ñi nga xam ne ñoom la ci suñu borom dogal lii ñu leeral la ko di la nuyu di la siyaare di la ñaanal yàlla na yàlla guddal sa fan te wéral say ceer di la masaw ci coono bi màggal gi ndax jaa génn ci coono màggal gi daanu waat ci lii ah lu métti la waaye ñu ngi jégalu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu